ci bi ñuy def lu nu mel ñu jàkkaarloo askanu Sénégal ci ab conférence bu yaatu wax li nga xam ne nag ñaari ponk yi ñu ci gën a sax xëy na insister pour peut-être yeneen détail après yeneen ministres yi ñëw ci mooy lu jëm ci économie finance ak budget mm-hmm. wax Sénégal fan la mbir moomu toll bi mm-hmm. ñuy jël réew mi gannaaw audit buñ ci def laataa yu ñëw ci le fond Mhm. ci forme de communication bi ni ñu ko tànnee defee ko noonu jàkkaarloo askanu Sénégal moom la premier ministre ci boppam mu jiite ko noonu nga ñu ko mën a mën a analyser. waaye ni ñu koy jàngatee mooy kenn rek moo fi wuute. te kii mhm. wute yaakaar naa ne li mu nekkul ci réew mi moo tax mooy Cheikh Diba. Mhm. mi ñu dénk wàllu finance parce que man yaakaar naa moom nag munul na munul woon bañ a ñëw. mais comme mbir mi mi am fekk ko fi. mu ngi ko fekk bitim réew donc loolu dañ koy nangu. waaye bu fi nekkul ki ñu dénk wàllum économie bi ñëw aussi tamit en partie ñëw na. Hmm. parce que ñoom ñaar bu njëkk ba sax benn la daan doon ministre de l' économie et des finances. et des finances tout à fait. waaw après je pensais moo ko seen def ko dagg ko ci digg bi. Hmm. mu ñëw dagg def finance ñi ñëw continuer ci dynamique boobu. Hmm. mais bu njëkk ba kenn lañu daan am. léegi nag li nga xamante ne noonu lañ defee noonu format bi boo xoolee ba ci biir. ñi nekkoon ci table bi. Abdourahmane moom daa toog ba jóg te waxul. nga xamante ne moo di Sonko. moo fay politique Al Amin Lo du politicien Abdourahmane Sarr du politicien Ousmane Diagne du politicien xaw ma nag constat bi nit ñi bàyyi nañ ci xel. tout à ñi nga xam ne ñu toog caal bi yëpp boo génnee Abdourahmane Abdourahmane jëlul kàddu. jëlul kàddu kon duñ ko compter. Mhm. ñeneen ñi toog xam naa da doon complété pour taal bi jekk comme Sonko bu toogee ñaar dañuy toog fii ñaar toog fii bu toogoon kenn toog fii ñaar toog fii day déséquilibré tout à fait xam naa Abdourahmane da doon gunge étant donné que le ministre taaral taaral toogaay bi ok mais boo boo jëlee ñi doon toog di communiquer mhm. da ngay gis ne ñoom ñett ñëpp duñu ay politique Ousmane Sonko moo fay politique et d'ailleurs dafa expliquer sax Ousmane Sonko façon bi mu doon waxee c'est-à-dire ñee bu ñu ñëwee indi volet technique bi expliquer mbir mi noonu Sonko daal di jël wax ak ñoom expliquer leen politiquement tamit lii ce que ça veut dire ak politiquement ban réponse dañ ciy amal moo tax démb ñaari tànk lañ doon doxee. politique amoon na fa waaw waaye tamit li nga xamante ne euh, moo di ay données ay chiffres. état des lieux amoon na fa tamit mii ñaar. léegi ñaari tey jii. Mhm. politique bi jël le dessus bi nga xamante ne moo di état des lieux bi ñu doon def. Mhm. te malheureusement bi ñu paree ñu bëri si ñu doon waxal tey ji li ñu doon xaar tey ji mooy ñu def conférence de presse démonter li Ousmane Sonko doon wax pierre par pièce par pièce mhm. man loolu foofu laa leen doon xaaree. Ah parce que tey ji accusation yi dañoo garaaw bi xeetu garaaw boo xamante ne pour man ëpp naa toog rek naan noo day politique nga xëy ay journaux gis na la Ousmane Sonko préparé nag commencé na campagne am DPG la doon def pour man c'est trop facile. sàcc nga jàpp ko guddi nga sàpp nga jàpp ko bëccëg nga jàpp ko xaaja guddi nga jàpp ko fajar ñoo yem sàcc sàcc la. mais toog fi naa ñu campagne bi lay préparer lay def nit alors qu'on nous parle de milliards yoo xam ne dañoo disparaître. et c'est pas c'est pas c'est pas au quotidien de nous dire si Ousmane Sonko faisait une déclaration de politique générale s'il mm-hmm. faisait sa campagne ou pas mais de faire un compte rendu et d'attendre si les autres vont sortir pour démontrer démentir s'il y a de le faire ou pas. mais loolu lañ doon xaar sax. man ay démenti laa doon xaar. ñu ñëw ñu weddi nga gis kat ku yàgg ku nekkoon ministre ministre des finances génn. Mm-hmm. ne bi nii lii ak lii ñu amul. mais xam nga bi mu ko waxee mu ne euh, par exemple yéen kat dette bi nga ñu doon wax te dette bi xam nga Macky Sall bi mu ñëw 2012 fu mu ko fekk 40 et quelques pour cent la nekkoon boobu ci PIB bi. Mm-hmm. et moom bi muy dem fi ñu ñaan ñu ko yóbbu. Ah mu romb 70 la daanaka du ko doublé wàllum ber bi comme ni mu ci chômage bi loolu benn la nga ñëw ci déficit bi tamit ñu ne la yaa ngi naan ñu 5 pour cent te mu ngi ci 10 pour cent beneen problème encore nga déggaat ñu ne la. am na cent cinq milliards yoo xamante ne dañ ko leboon FMI ne ko après campagne bi après présidentielle dañ koy soxla mais ñii ñëw après présidentielle fekk ñu fa xaalis ba disparaître na. et cinq milliards. cinq milliards. Mhm. yoo xam ne c' était destiné après après, après la présidentielle waaw bi ngeen koy leb doon ngeen wax waaw. mais 600 milliards la ñuy wax ay milliards. Mhm. ñi ñëw fekk ko fi 600 milliards fu mu dugg. dañ ko séddoo dañ ko def si ay saak dañ ko lekk dañ ko naan dañ ko lu ñu def milliards yooyu loolu duñ ci posé wu ay question parce que suñu xaalis la ñu ñëpp nga toogaat dégg ñu la am na trois cent milliards yoo xamante ne tey jii dañ ko def ni te kenn xamul fu trois cent milliards yi jaar maanaam da réer na muy waaye léegi loolu du nga toogaat ñu la am na mille huit cent et quelques yoo xamante ne tey jii dañ koo leb te bañ bañ ba ñëwee waxuñu Sénégal ne leb nañ ni maanaam leb duñu ko nëbb waa léegi li ma fi cité nii yëpp yëpp mérité wul tey ñu toog euh, càmbar ko lijjanti ko. Ah ah léegi après yéen ngeen wëlbatu taxaw ne non dafa doon def politique déedéet man nee naa benn milliard bu réew ci bu réer ci dëkk dañ ko war a lijjanti mais pas nga naan ki ko wax day politique wala day def nii. Mhm. loolu mooy problème bi jiitu mhm. maanaam li ñu doon xaar mooy ay réponse mhm. wax ñu ñii li ñu wax ne teguñu ko fen wala lii ñuy wax lii ak lii moo ci dëgg lii ak lii du ci dëgg mais jóg naan non léegi xam nga fan lañ wax Ousmane Sonko euh, Ousmane Sonko na lay def Cheikh Diba Ousmane Sonko nay def Abdourahmane Sarr bi nga xamante ne Oulimata Sarr sërëm la foofu la ñu yóbbu débat bi naan waaw comme léegi nu muy def ñun léegi mu topp ñuy bàyyi ñi man man man dama toog ba saag ma ne fi ñu bëgg a yóbbu débat bi yëpp sénégalais la wala lan la. ah oui à la limite. non doon joxe les chiffres. di génne différence yu ci ne kenn gënu koo xam ne moo Oulimata Sarr ñu bokk ci réseau bi ñoo bokk <laughs> bokk c'est sa sœur kenn gënu koo ko xam grande sœur voilà donc euh, Cheikh Déba aussi c'était un directeur de programmation directeur de programmation du budget budgétaire waaw ñëpp xam nañu ko ko tey ji manipulation chiffre bi am du du romb ki nga xam te ne mooy président ba premier ministre ak ministre des finances ba mënul génn ñett ñooñu te premier ministre sax troisième plan la ñëwee mais président ba ak ministre des parce que ñoom ñooy ñi nga ne ñooy ñoom ñoo ñoom ñoo am benn droit bi gën a kawe lu jëm ci wàllum chiffre ak indicateurs yi donc ñëlee d' accord ñen dañ liggéey loo dafay contribuer jëm ci chiffres yi mais boo demee ba ci daj dëpp ñoom ñi si kaw la nga bàyyi leen fi naan waaw parce que kii si département ba la nekkoon wala ci ministère nekkoon léegi il est comptable des fautes qui sont commises pour man yooyu yooyu yooyu ay ay mbir la ay ay yabaate la. Mhm. donc euh, pour man daal ay ay ay ay euh, am na explication yoo xam ne bëgg nañ ko daal te teguñ ko fenn. d'accord mais am na ci waxtaan benn moment le premier ministre Ousmane Sonko am lu mu wax loo xam ne pour man jar nañu ñu ñu bàyyi ci xel muy bi ñu jëlee réew mi bees commencé gisi mbir seeni xel ñaaw bi ñu nekk hôtel Azalaï ñu woolu ki nga xam ne moo fi nekkoon ministre des finance ngir waxtaan ak moom ci yenn chiffres yi muy Moustapha Ba dès l'instant que Moustapha Ba ci wax Ousmane Sonko avoué euh, li nga xam ne mooy modification yu am ci ay chiffres maanaam la ñu waroon a wax dëgg-dëgg askan wi waxuñu ko je pense que ne mbir mi nag daanaka kooku est-ce que waroon naa ñibbi këram Moustapha. ah mais dina ñibbi këram parce que boo koy jàpp doo woo nit ki mu ñëw wax la ne waxuma leen nga woo police ne jàpp leen ngeen yóbbu ci police bi. dina ñibbi këram. non que war na ñibbi en mais parce que parce que li mu la wax noonu après yow étude ngay def ba am ci loo ko teg parce que état de droit lañ nekk tamit waaw nit ki bu ñëwee ne fekk la nga toog rek mooy damaa ah, ba constaté yow nga dix mille ba pare boo constaté yoroon nga dix mille mm-hmm. te yóbbu na moom moo fi duggoon nga ne ko nañ dem tribunal nag nañ dem police nag yaa ko sàcc waaye jël naa dara rek nga ne ko jógal ñu dem police ñu ñaar tamit bu ngeen yeggee jëlu ko da am problème donc loolu moo tax munul mu wax ko rek euh, foog nga def diir man li ma li ma gën a impressionné mooy. Uh-huh. dal bi nga xam ne moom lañ àndal ci dossier yi. tey ji amal comme li nga wax nii bu doon keneen noonu lay def. ah oui da koy wax sa ëllëg sa rek nga commencé activer gars yi. ñu jëlee ñu lijjanti ko ñii ak ñi dañu di tëj. parce que dañoo fen dañoo def nii ñu nii defuñu nangam ak nangam mais non de xoola mois ñu commandé seen i ay audit gars yi di wër ñuy xëy ñoo leen di la romb ñi di voyage dem di ñëw nga toog jàpp sa ñàmbur boo génnee wax mel ni dara amul jàpp sa ñàmbur dafoo dara problème ba waxtu wi jot nga génne ko takk teg ci kaw table bi mais ñooñu ñëpp ñu teg seen table noonu mais daf ci am koo xamante ne mooy Macky Sall démb Ousmane Sonko tudd na ko ñaaroon ci waxtaanam bi. Mhm. li mu bëgg wane foofu mooy tey ci Macky Sall bés dina ñëw ñu yëg ci kawam dinañ ko woolu ji te assemblée nationale bokk na ci li nga xamante ne. Mhm. moo tax ma ne ku war ñaan ñi bañ a am majorité Macky Sall moo ciy jiitu ku war ñaan ñi bañ am majorité moo ciy parce que xam ne haute cour de justice boobu ñuy teg mhm. assemblée nationale lañ koy tegee mhm. ay député ak ay magistrats ñoo koy teg te résolution bi nga xamante ne mooy topp le président Macky Sall tey jii pour mu jàll il faut que moom trois cinquième des députés waaw léegi résolution boobu boo amul majorité assemblée nationale du jàll tout à donc gàtt gàtt parce que war na am cent députés yoo xam ne ñoo koy mën a garantir lépp loo xamante ne loi la boo xamante ne dafay laaj trois cinquième ñu mën koo jàllale waa léegi nag loolu moo tax ma ne Macky Sall bu ñu raxasee assemblée ba tegaat assemblée bees Pastef am majorité bu mu waaj parce que gars yi nañ dugal procédure boobu ne dañuy àtte président Macky Sall parce que haute la ñu wax ne mën nañ ko koo toppee te boobu noonu tey ji lii Ousmane Sonko wax démb nii ko qualifié wul rek mais bu leen léegi ñi koy accusé ñu toppee ko haute parce que dañ la jiite nga war ñu wax dëgg nga waat ne da ngay respecté de respecté li nga xam te ne moo di constitution bi. Mhm. ne doo trahir sa askan. mais nga ñëw ay chiffres am nga manipule chiffres yi. ay coopérative mais loolu bu dul trahison lan mooy. trahison askan bi du dëgg. bu dul trahison lan mooy loolu trahison la. te loolu buñ ko ci joxoñee rek mën na am problème ñu toppee ko ci haute trahison. mbiri or ak Abdoulaye ba mhm. bañ ko waxee mun a yëgul nanga ak nangam Macky Sall mi ngi ci biir mais lu toll ci sept cent cinquante nu ñu koy waxee sax cent cinquante kilo or kilogramme d'or loolu ñu génnee ko ci ngay président de la république mais loolu buñ ko établir mu doom ba doon lu nekk haute trahison mënu ko weesuwaat parce que sa alalu réew loo te te constitution bi askan waa ko moom. yow nga jël ko génne ko dëkk bi. génne ko dëkk bi loolu bu lan la. même boo bu ko keneen génnewoon te yëgoo ko sax. trahison boo ko taxee wax ñu ko fay nga sa sa mission. fay nga ak ak ak sa mission nag yow nga génnee ko réew mi. mi ngi noonu loolu moo loolu moo tax ma ne pour luñ ko jàppee rek moom ñàkkuñ ko te moom xam na loolu. moom Macky xam ne lañ ñu ko jàppee ñàkkuñ ko. ce serait très grave. léegi nag loolu loolu lu ma tax ma ne fi ñu toll nii bu ñu ko bëggee topp du ñu sonn. bu hmm. ñu bëgg ko assemblée bu ñu ko tegaatee rek après diñ ci xam dara de gars yi bu ñu ko bëggee topp du ñu sonn dara bu ñu tegaatee assemblée du ñu jëm ci kawam. est-ce que mbir mi narul compliqué ak législative yi ñu jëm le moment euh, ndax Ousmane Sonko yaa ngi koy wax léegi tudd na Macky Sall ñaar yoon ci discours am waaye tamit tudd na tuddaat ku mel ni Amadou Ba. Hmm. Abdoulaye Daouda Diallo euh, ak Moustapha Ba. ñoom ñu nekkoon fi ministre des finances Amadou Ba sax nekkoon fi. aussi par la suite euh, mhm. dama yaakaar ne bu ñu leen doon toppatoo après législative lay doon. ok waaw que am na ñu ma déggoon ñu ne euh, pôle judiciaire mën na àtte tamit ancien ministre déggoon naa loolu ñu ne pôle judiciaire financière na àtte ancien ministre. kon xam nga ñoom bu njëkk bu fi pool bi nekk woon kon haute cour de justice rek la xaar ñu mën leen fa àtte tout à fait tout à fait waaw mais suñu ñëwee pool bi mën na koo àtte donc raccourci lay di gën a gaawal mbir yi mais man dama jàpp ne dans la forme boo leen woowee ci biir campagne wala pré campagne surtout ay tête de liste ak yooyu noonu mën na am leneen lu mu nduru tamit mën na am leneen lu mu nduru moo tax nag ñu bëri fi ñu toll daw ngir am immunité may leen immunité parlementaire moom euh, su Macky wan nañu du dara ñu yëkkati immunité parlementaire ay yëkkati mbaxane la ñamane woon mhm. da ngay guddal jëli da ngay jaar gauche jaar droite ñu dajal nga nekk fa nga bañ faa ne ñu lever sa immunité parlementaire ne gars yi mhm. nag euh, bu fekkente ne rek juste dafa jóg ngir def liggéeyam. Mhm. warul calculer le calendrier politique peut-être. waaw d'autant plus que nag li ñuy wax nii moom c'est c'est c'est des c'est des nga xam ne si c'est avéré c'est hyper grave. waaw mais loolu dëgg la mais xam nga tey jii mbir. Mhm. boo koy def dafa am forme aussi. tout à fait li waral démb xam nga ñoom bi ñuy ñëw ñëw ñu bëreet ñu def ko. Mhm. déjà am na ay audits yoo xam ne jeexagul.